আফদল রসুল্লাহ jiite xale yi ak ci turu soxna Maram ñoom soxna Jeeg soxna Penda Sow soxna Buyo ñoom ñëpp ci seen tur ñoo ngi nuyu Cheikh Alwali Maana Ndiaye doomu Cheikh Mor Fallal doomu Cheikh doomu Cheikh na Cheikh Sarr di ko wax mu jot ñu suñu nuyoo ci magam Chérif Ba ay dara Chérif Chaay ay dara Chérif Xatraane ak magam ay rakkam ak njabootu Cheikh Mouhamed Fallal gépp ak njaboot Cheikh Max bu gépp ak njaboot Cheikh Moussa bu gépp di ko wax ni Chérif ñun de fa ñu nekkoon démb ak bërki démb fa kër lan te yaakaar naa relation bi dox diggante Chérif Alwali ak Kell Gueye yaakaar naa c'est une relation ba mu amee yàgg na waaye damay wax ni su agsee fii rafet ba léegi c'est grâce à Chérif Alwali moom moo jàpp bàyyiwul suñu seetoon suñu tolluwaay seet ñi suñu jukko seet ñi suñu melokaan kon ànd bi yaakaar naa ba léegi tàqali ko nan bu yàgg waaye nag wax dëgg yàlla gis ci moom lenn loo xam ni a ah, ñun dana ñee nit ci ab ab ab sëriñam tetta na ni ci islaam ndigalam ci ñun mooy jaamu leen yàlla fonk leen seeni i waajur bëggante leen seen biir ñetti kàddu yi du ko wees yaakaar naa ñetti kàddu yi ëmb na lépp donc sëriñ ñun am ñu sa fay yàlla moo la mën a fay yàlla na yàlla na nga sut sa maam Cheikh Mor Fall Afan di barkat Serigne bi Seydina Mor alayhi salaatu wa salaam kontaan nañ ci yow lool Chérif macha allah ah ñuy nuyu aussi monsieur le maire Cheikh ndax taxawaayam ci bis bi jiitu na muy nekk maire laata muy nekk maire la fi daan indi ay teraanga kenn mësu koo man ci bisu kër ji mais rawatina tey bi nekkee maire wax dëgg yàlla boo amee programme.

jour day ñëw chaque jour ñu ne ñoom fii ba mu dem ñibbi loolu nag vraiment sedd na xol monsieur le maire kontaan nañ ci yow lool di nuyu sa naataangoo maire yi nga xam ne ñoom la àndal muy monsieur Thierno Dieng maire de de la commune de Mbédiène euh, monsieur le sous-préfet jooy dox dëgg yàlla amee nañ la njukkal ndax ni ñu koy faral di waxee rek sous-préfet jaar na ba tàyyi waaye li ñuy defal suñu bis bii benn sous-préfet mosuñu ko dafay defal ndax wax dëgg yàlla en collaboration avec le maire de la fexe ngeen ba gendarmerie ñëw fexe ngeen ba sapeur pompier ñëw fexe ngeen ba croix rouge ñëw donc service yooyu yëpp ñu ngi fi te daaw ñu fi ñëw te xam naa xam-xam jamono sax mais euh, CRD ngeen programme woon yàlla aussi CRD ak innovation sax ci appareil te yaakaar naa ne fi nga noonu ko doxee ci sa appareil woo ñi nga war a woo ñëpp ñu teew ñoom ñëpp ñoo ngi leen di sant ñoo ngi leen di gërëm comme ni ko Abdou Gueye rek représentant chef de village ñu koy nuyu di leen xamal ni ñoo ngi nuyu soxna Ami Cheikh soxna ñaañi ñu ngi leen di nuyu soxna jay na ba conseiller ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp ñu ngi leen di nuyu Chérif di jël nuyoo bi di ko teg sa loxo nga jot leen ñu ko Chérif Ba Chérif Saaya Adrame ñoom ñëpp nga jot ñu ko ak soxna maam ma ñoom bu ko defee ñu ngi leen di xamal ni bis bii tey day bis boo xam ni Cheikh Aliou ñu ngi lay nuyu Seck

ndax it nag ni koy waxee soo bàyyee fépp jóge teewul romb na romb daara romb kër gu mi sa dëkku nijaay romb fépp ñëw ba Kelle kon wax dëgg yàlla boo ñëwee Kelle war naa mel neneen ñun nag ni ma koy wax rek ñun ab Baay Faal lan rek bu tund wi suñ borom teg ñu fi démb ñeneen la woon tey ñun la ginnaaw suba ñeneen ñu fiy ñëwaat mooy ni ma koy wax rek yàlla buñ ci gis suñu di ñaan yàlla nga ñaanal mbooloo mi fi nekk comme ni ñu koy waxee yàlla def fi jàmm di ñaanal yàlla ñun ñi encore ñu am nawetu xamal ni nag ni ko Abdou Gueye waxee le sous-préfet de Médine tey lépp lu fi yemb ginnaaw yàlla moom la ndax dem naa ci moom bi ma demee presque boobu léegi ziar bi yegsi mais lépp lu ma ko wax rek. daan ma bisimilaay aywa mën a ñëw nan nan ko kii muy gendarmerie. yàlla ci baaxam def ni laataa ñu jël kàddu sunu yaakaar àdduna ak alaaxira muy Cheikh Mbax xalifa Cheikh Mbax doomu Cheikh Mbax egg si ci tànk ñu koy rafetlu bu baax di yëkkati kàddu kàddu ngërëm di ko ko jox moom mi nga xam ne moo waral di def macha allah seytaan wali sama tur ci turu taalibe yi waa Kelle ci turu waa Tuuti ci turu waa département bi ci waa région de Louga ñu ngi lay ziar bu baax di la jox sa wàccuwaay di la ñaanal yàlla defal la que li Cheikh Tahir wax dëgg la li di wax la force tranquille ñun ñu dëkk ngumba taalibe xaadri ñun jullit yi dañu am ci yow loo xam ne nii lu am solo la donc ñu koy sant yàlla bu baax ñaareelu pàcc bi mu jëm ci administration territoriale bi nga xam ne moo fi am représentation bu am solo donc mbooloo mi Chérif nee na mi ngi sant yàlla bu baax di julli ci yonentam mu tedd bi Seydina Muhammad di wax alhamdulilah rabbil alamin lu tax mu koy wax parce que ay jamono ngi nii diir a ngi nii daje bu mel ni amul woon parce que dafa am loo xam ne moo tënkoon réew mi yàlla ci baaxam dimbali ñu ba xam ne loolu tënkoon ñu tey ji alhamdulilah rabbil alamin wàññeeku na bu baax ba ñu mën a tase loolu nag buñ ko amee lu tax ñu am ko mooy ñaanu mag ñi ñaanu kilifa diine yi ñaanu ahlu baytu rasul moo tax ñu mën a daje fii tey donc mu ngi leen ci sant leen gërëm di sant waa kër Cheikh Saad bu Diop di sant waa kër Cheikh de Calaw di cant di sant xaritam sëñ Cheikhouna naa mi nga xam moo fi teew di beral cant waa dëkk bi commencé ko chef de village bi di beral cant mboolem mu muxaddam yi xam ñoo dëkk ci tund bi di boroom xam-xam di aalim yi xam ñoo dëkk fii mi ngi leen di beral cant di sant tamit ñi nga xam ni nii mooy ay dëkkandoom ñu jóge ngumba rot si fii ci bis bi do ànd kook moom ñëw fekk si waa Kelle donc mi ngi rafet lu baax seen taxawaay ci ren mi ngi sant bu baax ay am di jàmmam ay xaritam ay wëlëreem mu jukk ci sant bi ku ñuy wax Abdou Sarr sama xarit Samb wax na ko léegi muy xaritam muy doomu ndeyam muy wëllëreem mu dëkk sàkkal am ak moom relation yoo xam ne ñun xam nañ bu baax lan mooy lan moo dox seen diggante ci loolu tamit Chérif mi ngi sant sàmba Sall mi nga xam ne moo jóge ba Mauritanie wolof nee na lu yàgg dëgg la donc ñoom ak Chérif démb la woon donc bu xew xewlee ñu ñëw tey fekk ko Sénégal comme nañ ko daan fekk see donc dana rafetlu teewaay boobu Chérif nee na mi ngi sant xaritam Magay Gay di ku baax di ku yàlla baaxe di koo xam ne ni fa ñu dëkk tunduwam dëkk lu baax rek lañ ko xam mu nit ko am fulla ko am fayda ko am fit donc Chérif nee na ngi lay sant bu baax di la gërëm ci taxawaay bi yàgg ñi nga xam ñoo fi nekkal wal jamariya Chérif du leen gërëm parce que mbooloom lañu ñoom ñoo taxawee mbir mi depuis ca commencement ba ba léegi donc Chérif mi ngi leen di ñaax ngeen gën góor góor gën a taxawaay xam ni mbir mi mbiru diine la te tool bi yaatu na am na wàllu wax ne war ngeen ko cee bay te ni ngeen koy bayee bayin wi rafet na bu nu jógee ci loolu Chérif wax na mi ngi gërëm autorité administrative yi xam ñoo fi teew di commencer par le préfet Bien nga xam ne l'autorité administrative de administrative région bi mais représente plus particulièrement le ministre de l'Intérieur, le di Tibir ci le ministre Antoine Félix Ablay Job, chef nee na mi ngi gouvernement Sénégal Je suis ci président de la république Macky Sall mi nga xam l'autorité administrative tax autorité administrative Je suis teew ci bisu mel nii bis bi na am waaye tey la ko yàlla dogal li am solo ba am solo mooy état xam na lan mooy taxawaayu këru diine yi ni état xamee taxawaayu këru diine yi noonu la état xamee taxawaayu nitu diine yi te ci biir nitu diine yi état def ci am wàll boo xam ne bu am solo mooy def ko jëmee ci waa kër Seydina Mohamed donc ñooñu bu état amee taxawaay bu mel noonu ci ñoom jaadu na ñi nga xam ne nekk ci keppaaru surafaaw yi cédel len ko wax len bir mi noonu la monsieur le préfet li nga wax dégg nañ ko boy set acteur de développement boy set nit ko xam da fay investir pleinement pour li tuddé épanouissement collectif bo excès ba cheikh Al Wali war nga mëna wagné wàññeeku parce que lolu moy mission bi nga mom la ma xam ci tedd ji jox muy Chérif Ba donc boo gisee muy dox xamal doxul len dul ci ndigalu magam ci tedd ji te li am solo ba am solo ci suñu réew mi mooy topp ci koo xam ne nii bëgg-bëggam doxalinam gis-gisam mooy lu defar jaam yi lu defar doomu aadama yi tey taxawaay boobu si li la koy firndeel mooy tey ji nit ñi mbooloo mi xam ne moo tase fii tey du mbooloo mu yàqu mbooloo mu ñu defar la mbooloo mu am solo la mbooloo mu am gis-gis la mbooloo boo xam ne nii bokkul ñi nga xam ne nii bu ñu génnee fii seen xel dina ñaaw déedéet lii nag la état soxla ci kër diine mooy ñu defar nit ñi teg leen ci yoon jàppale leen wan leen li nga xam ne mooy seen njariñ ak ci àddina ak seen njariñ ci laaxira li am solo ba am solo mooy shérif mi mission mooy defar doomu aadama yi fu nekk nag nit jóge na fa ñëw ci moom defaru bu delloo nekk sag ci ay mbokkam loolu lañ soxla ci bopp donc lii modèle la boo xam ne nii dañ ko war transposer ci biir réew mi nit ñi gis ko ba tax na Chérif mi ngi sant bu baax teewaayu média yi parce que bu média yi teewul li ñuy wax amaana dana nit ñi dana ko dégg mais fa mu war a jëm du fa àgg donc ñu rafet bu baax teewaayu média yi parce que ñoom ay éléments lañ yoo xam yu am importance ci discours ci wax ji Chérif nee na ma naa boole ci ngërëm li waa kër ñooñu sox suñu mbokk lañu waa ngumba lañu bu ñu tuddee waa kër Abdou Aziz Sey danañ tudd waa kër Seydou Aline Ba ñu ñoo xam ne dañu amoon relation boo xam ne ni bu exemplaire la ñu ñoom ak sa wajuru teru Cheikh Ahmad Fadal di gërëm tamit ñooñu tamit mën nañ leen a bañ a tudd parce que rakk lañu ci kër gi mooy waa kër Chamat Jaw Waalo bërki démb ànd naag Chérif ba ñu dem fa mu am lu mu wax mbooloom yëpp sedda la ñoom ay rakkam lañu donc bu ñu xewlee kër gi xewle ñoom ñu ñëw dañu ñëw seen biir kër Chérif nee tamit naa gërëm sëriñ Aydara Mbàkke muy ku yàlla baaxe ni ko yàlla baaxee mooy sët la ci sëriñ Touba. ñëw ngumba nekk fa am liggéey bu am solo boo xam liggéey na ko foofu ñu koy rafetlu ñam fa bàyyi danaa ci ñëw danaa ci ñëw waa chef nee naa gërëm waa kër sëriñ si Amba Yacine Seye ñooñu ay muxaddam Maam Alaaji Malik lañu fa leen Seydi Ali may samp ca ngumba ca tund wa am na loo xam ne liggéey nañ ko ba day ji desital baa ngi fi donc loolu ñu ngi koy sant ko gërëm li am solo ba am solo rek sëriñ wax na ko nee na nañu jàpp ni woote bii mu woote ci Kelle woote lislaam la woote diine la woote la boo xam ni daf ko def parce que li yàlla digle ci bis bi moo tax mu ñëw ànd ak ay mbokkam ànd ak ay rakkam ànd ak ay jarbaatam ànd ak surafaaw yi tamit ci ñooñ tamit chérif ne dana ci jukki ngërëm ci ñaar ñoo xam ni seeni i waajur daañ leen teewu bis bii kenn ki mooy suñu papa Cheikh Sidaati doomu Cheikh Mahmoud Maleyni doomu Cheikh na Cheikh Sad wallaay bis bii daaw ko manqué tey doomam moo ñëw toog ci place donc Chérif nee loolu lu am solo la ci mbir bi ñaareel bi mooy suñu kilifa di Cheikh Mamadul Maamoun di ku yàlla baaxe mu daan ñëw ci bis bi tey doomam bu Bounana nga xam dafa jël njëbbalam jox ko Chérif Ba ñëw na teew ci bis bi donc ñooñu bu ñëwee jaadu na ñu wax ko mbooloo mi seede ko xam ni ñoom fa seen i wajur tegoon seen i tànk foofu lañ teg seen tànk mbir mi nii rek la monsieur le suñu mbir nii rek la mag

lan moy force autorité religieuse yi nga xamé ne ñoo nekk ci réew mi ñu ñaan yalla def jamm ñu voté ci jamm dellu ci jamm Sénégal bal tàkkul ku xëy suba dem nga liggéey alors que avant lolu ku nek amone nga tiitaange mais liñ ko may moy taxaway mag mooy taxawaayu kilifa diine yi donc cherif nee na lépp loo xam ne état sumb soxla ko ci wàllu dal ci wàllu jàmm ñoom seen loxo ma nga ci biir danañ ci liggéey wax ci dox ci ba jàmm am parce que jàmm rek mooy dëkk lu dul jàmm du jàmm donc loolu lu am solo la ñu xam ko fi shérif di daanele mooy ay kilifaam lañu parce que soxnay kilifaam lañu mooy soxna Ami Jaañ yaay la ci Chérif Chérif soxna mi Diagne doomoo ko donc ñu am seen diggante nekk diggante boo xam diggante am solo la teewaayu fii teewaay bu am solo la teewaay bu rafet la ñun de ñi nga xam ne ñooy taalibe yi di am di jàmm yi dëkkandoo yi buñ ko gisee mu toog nii ci wetu Chérif sunu xel dana dal te sunu xel gënati naa dal parce que moom ku yàlla baaxe la ku yàlla baaxe la parce que ku mën a bàyyi luxe bu nekk ndakaaru ci ay jamono nga mën a ñëw ci kër tarbiya ku baax la donc di gërëm tamit soxna ñaañe mi xam ne ni mooy soxna suñu kilifa suñu mag muy Cheikh Chaye xale yi gën koo xam ci bàyyi mu karam teewaayam fii teewaayam am na solo parce que mbir nii la rek ñu ñëw bootu ci ginnaaw magam soxna Ndiaye. donc rafet lu bu baax teewaay bi jarbaat yi tamit chérif fàttewu leen seen toogaay rafet na le préfet mbir ni la ñi tok ci suufu chérif ay jarbaatam lañu type de relation bi du relation amicale mais c'est une relation filiale Li moy solos li li moy te li nak la soxla mu am bir Sénégal pour que jamm sax fi pour que jàmm sax fi parce que ci jàmm ci lépp xaj donc Chérif nee na mi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di leen ñaanal di ñaanal magam ju tedd ji Cheikh Mahfou di ñaan yàlla bu déwénee ñu fekkee ko ci jàmm ak salaam kenn bañ a manqué di ñaan yàlla ku ci nekk mébét bi nga xam nga si biir xol yàlla fajal la ko zaayiroon baatinan nga xam ne mooy xéewal ci bis bi ñu ñëw fii ci gel di ko taataan ñi ngi sant yàlla bu baax di yàlla defal nañ ko xanaa fàtte naa ñaari nit rek te yaakaar naa war naa mën a lim kenn ki mooy Chade Thialo Seck bi nga xam ne mooy maire Ngourane Abdourahmane Diop moom mooy suñu maire au niveau de Géoul je pense que li sous-préfet wax rek mooy dëgg dafa am lekk boo xam ne nii moo am ci moom nit ñi am ci moom yaakaar pour que ëllëg ci biir suñu dëkk bi suñu dund bi jëm feneen ki nga xam ne moo lay jeexal tudd na ko léegi mooy le maire Cheikh Ndiaye wax na dëgg.

Kep kuñu tuddu tudd sa warab rek nga yëngutu daanu neena sama sang dafa ñew sama bay, sama sering. ki nga xamni moy cheikh mahfou doomu cheikh ne cheikh saat bu ci kaw suuf ba pare di cheikh mahfou nak di cheikh mahfou fa tabarakallah mate ko seuk waye nak di cheikh mohammed badal doomu cheikh al mahfou نانا بو شريف مخفو شيخ مخفو تيوسي نانا تي موم لاي واخ وايي لي ما ورونا واخ لب غور صباح سي شيخ دو سارنيا واخ نكو جيرجيف شيخ دودو شريف الولي نانا ماغي نيان يالا كيب كو في تيو nga ñaanalal ko kilifaam gii cheikh mahfou doomu cheikh mohamed vadl doomu cheikh al mahfou doomu cheikh ni cheikh sat mu yàgg fi lool te wér nag mu wér yàgg noo jiite moom ak ay rakkam nee ni nii mu ko ñaanalee yàlla mu gudd fan wér la ko ñaanal ay rakkam li ko dara cheikh cheikh alxadraame ba ci suuf soxna miina ba ci suuf ak sunu njaboot gépp nag njaboot gi nag mooy ñii ci kaw ak ñii ci suuf waaye Chérif Alwely nee na moo ngi seedeel yàlla ni am naa kilifa goo xam ni wala am nañu kilifa goo xam ni mën naa koo ndamoo fu ne jamono dafa yàqu jamono yàqu kenn ku bokk ci kër Cheikh Mof fàttaliku fu mu la waxee lu ñaaw baa mu def la ko baa mu romb la ni la fayal làmp bi walla tëjal robinet bi kuy wër gor boo rombee seexal max fu perte nga waaye kuy wër kilifa gu mat kilifa boo rombee seexal max fu perte nga ndax romb nga kilifa tey jii fii moom du jataayam ndax jataay bu mu toog waaye bëgg lu neex njabootam moo tax Cheikh Al Max fu ñëw fii tey bi yabaloon ki gën a tuuti ci kër gi ñu jàppe ko jëmmam ndax amuñu lu ëpp Cheikh Al Max fu mi ñun Cheikh na Mouhamed Fadel nett rek lañ ci am xamuñu ci moom dara moo ñu yar jàngal nu moo ñu teete waaye defal ñu lu gën loolu nag jël ak doom ni mu neexee jël ñu teg nu ci kaw njabootam loolu Chérif Alwali nee na mbaax weesu ko tey nag Chérif Alwali nee na day tiitaru nag ndax ku am kilifa gu mel ni Cheikh Al Maxfu bu teewee ci sa jataay da ngaa tiitaru ba ñëpp xam ni tiitaru kon ñoo ngi ñaan ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mom ak rakam yeb yal na leen yalla wéral yalla saxal leen ndax limu ñu jangal moy and leen ku mag jité ka ca top top ndigalam te suñu kër fa tabarakallah loolu dong mo fi am Cheikh Doudou Sarr wax na ko léegi si maa toogoon ci kaw ci sees bi ci kanam njaboot gi toog ci gannaaw mu ñëw ma wàcc ci toog toog ci sees bi ci suuf njaboot gi ñépp ni rëpp ci suuf ñaar ñëlee toog dañuy wettali seeni doomi bàyyee ndax loolu moo rafet te ñoom it ci njaboot gi lañ kon lii lu ja lu jara roy la kenn defu ko ci ñun lu jëm ju sell je di cheikhal mof ñoo ngi nuyu ñi nga andal ñep seeni dal sax ñi ngi leen di nuyu ngir fonk guñ leen fonk ndax suñu kilifa gi ngeen andal man nak kuma bëgg na ma ñaanal yàlla man chérif alwali ma gën di top cheikhal mof te bañ a ndigalam ndax lolu momay jariñ aduna moo may jariñ àllaaxira moo may jariñ fii ak fa ñu jëm Chérif Alwali nee na loolu la ci doon dolli li ci des nag mooy li Cheikh Dou Sarr ñaa wax waxtu wi gàtt na tënku nanu waaye kenn ku ne bu ñu ne la mënoon a tudd dinañ la tudd ba nga yëg ni yëg nañ sa ñëw waaye yàlla xam na te may nañu xel fal alhamdulilah may ñuy bët gis nañu ñëpp ñoo ngi leen di bàyyeeg yàlla ak sëriñ bi waaye képp ku fi ñëw loo fi indi ci aajo daal loo mën a wax ak loo mënta wax yal na ko yàlla faj ci bisu Ashura bi njabootug mag ñu baax ñi fi teew ñëpp teew nañu yàlla na leen yàlla dëgëral saxal leen ci darajey Muhammad ñi fi nekk ñëpp ay kilifa lañ amuñu jot waaye dañoo bàyyi seen yitte ànd ak seen njaboot bàyyi seeni soxla ñëw ngir seen jëmm kon loolu buñ ko defee ci dëkk bi muy Kelle Gueye Kelle di sama dëkk ku fi nekk di fi yeewoo waa nga nekk ci tund wi sama diggante ak yow kenn matu ci seede maa ngi gërëm waa Kelle bu baax di leen ñaanal yàlla yàlla saxal leen ci siraatul mustaqim def leen ñuy benn yokk seeni xéewal barkeel seeni njaboot noonu laa koy ñaanale taalibe yi Cheikh Doudou wax na ko léegi aljamaariya al waa kër Cheikh Maxfu gépp ñoo ngi leen di ñaanal ak njaboot gi fii nag dañ fi daan toog di ànd ak nit ñu baax maa ngi koy tàmbalee ci ñi dëkke woon ëtt bi yàlla jël leen yàlla yàlla yërëm leen xaare leen àjjana yàlla jël loxoom teg ko ci seen njaboot waaye ñoo ngi fàttaliku bu baax Cheikh Mahfouka doon sama taalibe te daawul rate bis bi yàlla jël ko ak Cheikh sat bu Saar Cheikh Saad bu Saar sama rak sama taalibe sama xarit yàlla na yàlla xaare leen àjjana bi jaay Seydina Muhammad dañuy fàttaliku bu baax soxna Kiné Joxaane mësta tardé bis bi daan jóge Kébémer di fi ñëw li ñu seeni Cheikh Saad waxoon rek mo nek sunu xol yi waxon nañu ida qada allah alayka ma qada hayyi lahu sabran jamilan wa rida lolou bu lon ci suñu xol tay duñu fi taxaw xolal li ñu ñak ci ay kilifa الحمد لله رب العالمين كملني شيخ محمد فاضل الخليفة كملني شيخ طالب بويدا رقم شيخ سيدات العين شيخ محمد المامون شيخ الخليفة شيخ الخليفة شيخ محمد المامون ميغا خمني نيون مودون سونو ليب يالا جيليكو في واي ايمان بوبي اك موغن بوبي ak nangub dogal bi cheikh ni cheikh sad bu jëmbat ci ñun motax tay ñu mëna taxaw fi di wax waye yalla mi leen jël defoon ci ñoom ñuy deretu yonent bi ñu bokk ak ñoom ñu jëf jëf ju rafet ba tay fo tok man ko nettali moo tax jàqu ñu fañu nek nekk qawmun وما ماتت مكارمهم وعاش قوم وهم في الناس أموات dañ daan toog Cheikh Sidaati toog di sunu baay ñuy laaj addiyaam kon Chérif Alwely nee daa bëgg képp ku fi nekk nga def noonu ndax loolu sunu devise la li ci des mooy sunu njariñ la mooy joxe addiya taalibe day nangoo jaamu yàlla di liggéey di moytu di bañ tooñ tey joxe addiye kon shérif nee na li ci des mooy addiye ji war suñ digganteeg Cheikh Mahfoume na Ibou Alwali mii jóg yóbbul sëriñ bi téeméeri junni nee na maa ko joxe ci turu taalibe yëpp cinq cent mille ak sama turu boobu ñu jox ko sëñ bi addi loolu nag janggal, gisee ma wax ko dama leen di jàngal ndax dañoo war di liggéey di jox cheikh al maxfu di ko ñaqal jox ko suñu lépp kon man ak képp kuy sama taalibe ñoo jël 500000 jox ko cheikh al maxfu addi boole ko xeeb maa ko joxeel yépp bu ñu milliard sang bi jox ndax dañ laa jox suñu jëmm yi nga jar ko lool mérité ko lool liggéey ko ci ñun kon li ci des mooy Chérif nee na ñu génne addiyey Cheikh Sidati fii ñoo ngi gërëm presse bi ak force force de l'ordre si ba l'ordre bépp ak sécurité loolu laa am lu ma ci doon wax bu ma ko waxul woon du baax hadrame cheikh al hadrame doomu cheikh saad bu shibi ñu gën koo xam ci cheikh al bahayda ay taalibeem dañoo génn àdduna mu leen doon rob legi lolo tax ñëwuñu waaye démb la ma yónnee teraanga ju bari te fan yi ngi ñaanal kon ñong koy gërëm di ko sant di gërëm ay mbokam serigne cheikhuna fall yonne na adiya mom ak soxna ba sal, serigne cheikhuna fall nak kenn ku ne xam nga sama digënté ak mom soxna serif saya sunu kilifa la soxna serif ba sunu kilifa la ndax ñun duñuy rak ay doom lañ lool la bëgg mu leer ci ñepp ñoo ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp wasalaam